bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii ñu nekk di benn ci jataay yi nga xam ne ahfaadu Cheikh Mamadou Fadil ñi ngi koy taxawal ànd ko ak seeni wayjur mu bokk ci bis ñuy waajalee màggaluk Cheikh Mamadou Fadil radiyallahu anhu di màggalu Kazu Rajab tey nag ñu di ko defee ci fii ci Ndindi ci barabu boppam bi nga xam ne mi ngi ko sancoon ci 1913 ci ndigalal sëriñam ba Cheikhul Xadim radiyallahu anhu jotaay bi sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Amadou Fadil mi ngi nii toog di kilifa jataay bi ak rakkam sëriñ Cheikh Awa Balla Mbakke mu Cheikh Mamadou Fadil ñu ànd ak seeni seeni njaboot seeni rakk sëriñ Cheikh Mbakke moom sëriñ Abdul Karim Baay Daam Faal buñ leen tuddee mu mën a yóbbaale ñi ci des ñu fa seeni fee waxtaan wu am solo ki ko war a waxtaane di sëriñ Afe Ñang bu ci kanamee ba dañu ko jox kàddu gi des na leeral ci moom tuuti waaye ci ubbite jataay bi dañuy jox sëriñ Cheikh Oumy Mbacké moom Cheikh Amadou Fadil mu ubbil ñu jataay bi ñaanal ñu ñu doo ko tàmbali li nga xam ne moom mooy waxtaan wi kon sëriñ Cheikh Oumy bismillahi barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Mohamadul Fadal mi nga xam ne mooy borom jataay bi fii ak borom euh, fii nga xam ne fi lañ koy defee Serigne Falilou Ndiaye comme ni nga ko waxee rek noonu dong la mbir mi deme ay bokk la yoo xam ne kenn mënu leen a sànni kenn mënu leen a wàcc ànd ak ñoom rek la ñuy man muy ak njaboot ñu daje. doon aw say woo xam ne ci ndigal lanu ko defe ci ndigal lanu ànde ñooy taxawal bis bu mel ni di ko defal Cheikh Mouhamadul Fadal muy wax ci turu Serigne Ahmadou Badiou mi nga xam ne moo jiite liggéey bi euh, jële ko ci ay kilifaam Serigne Abdul Fattah mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi ak Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy jawrin ji mm, jël sunu Serigne def ko ci kanam mu jottalil na ko suru sëriñ bu mag bi nga xam ne moo toog jotaay Cheikhul Khadim kon nag sëriñ uh, Falilou Ndiaye dañuy ubbi rek uh, def ñaan ñu jox sëriñ Afia mu dugg ci biir waxtaan wi waaye mag ñi moom bég nañu uh, ñi nga xam ne ñooy yilife bég nañu ñi nga xam ne ñooy sàmm tam kontaan nañu sunu xalaat ak sunu xel nag du jóg ci yéen mukk rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay njaboot gi nga xam ne ëllëg si biir bu nu gisul yéen la ñuy gis. kon ñaan ci barke borom dëkk bii ak borom kër gi lu ci nam te bëgg ko ci yàlla ko borom def ci barke Cheikh Mouhamadou ci weer wu tedd dëkk bu tedd bi ci jotaay bu tedd bi di fab nuyoo bi ak ziar bi ak ndokkeel yi di ko teg ci loxo yi sëñ Cheikh Oumy Mbacké mi kilifa jataay bi jiite ko nekkal fi kilifa yi di ñaan sunu borom barke Cheikh Mouhamadou Fadel barke borom Touba jataay bi nekk bu am njariñ bu sunu borom nangu dañ daje ceeg ngërëmul ki ñuy dundal ak gane àddunaam ci weeru tedd wi ni ko Sëriñ lu waxe waxtaan wi sëti Cheikh Fall di tànn ñu ngi leen nuyu bu baax leen beral nuyoo leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ak bis yi ci kanam leen jaajëfal ci seen taxawaay bu rafet bu ñuy taxawee ci weer wi ak bis bi waaye bu kenn ku nekk ci ñoom di taxawee ci sa doxinu bopp ci góorgóorlu ko farlu ba ku ñu ne kii sëtu Cheikh Mouhamadou la ñu xam ne loolu dëppoo na ñu leen di ñaanal baax suñu borom dëgëral leen kàttanal leen ba liggéey bi ñuy def ñu gën cee am ndam gën cee am tawfiq waxtaan wi kon mooy taxawaayu Cheikh Mouhamadul Fadil ci dalu réew mi ci wàllu politik ak social waxtaan wi bëgg nañ ko tënk ci ay tomb bu njëkk bi dañuy wax ay kàddu ci xamle kan mooy Cheikh Mouhamadul Fadil mooy shaxsiyatu Cheikhi Mouhamadinil Fadil tombum ñaareel bi ñu waxtaan ci fi mi tolloon ci wàllu politik ci jamono yi muy toog ci jal bi bi doon xalifa tomb bi ci topp mooy taxawaayam ci wàllu politik ak sukkandikaay cëslaay yi nga xam ci la ko tegoon taxawaay bi mu taxaw ci wàllu politique ak teguwaay yi mu tege woon tomb mujj bi nag doon kon taxawaay yi mu daan taxaw ci anam yu bari ak fànn yu wuute ngir réew mi amuk dal ci politique am ko ci ci dundiinu waa réew mi ci seen diggante ak seen euh, seen seen euh, seenu dundiin seen dundiin kon ci tomb yooyu lañ bëgg a tënk waxtaan wi Cheikh Mouhamadul Fadil ci xamle mooy kan wala boog wax ci saxsiyaam dañu naan doomi Sëriñ Tuuba la jumu yaral boppam defe naa ñaar yooyu <coughs> lu ci ber woon rek doy na màggaay doy na yaakaar doomi Sëriñ Tuuba dafa am jagle bu ko yàlla yi defal mu indaale ko am ay naaya te mooy taxaw euh, euh, taxawu gu ko sunu borom di taxawu ci aw dox doxinam ak dundam ngir sëriñ bi jeex gim jeex ci boroomam jeex ci yonent bi sol alayhi wasallam ba talut jëmmi boppam talul njabootam suñ boroom nag wuutu ko ci njabootu boppam di ko taxawul boppam dafa leen ay jagle yoo xam ne dañ koo wéetoo kon képp ku ñu ne doomi sëñ Tuuba la loola lu baree nga ca biir kon loolu ñu koy wax ci moom di wax na it ku sëriñ Tuubaa yaral boppam la xam nañ ne sëriñ bi defar doomu aadama moo ko taxoon a jóg yeesal diine yeesalaat pas-pas yi nit ñi defar seeni jikko sànnal seeni jëf yéege leen ba ñu jege seeni boroom kum fekkuloon nga am dara mu def ci yow dara kum fekkoon ci yow dara mu yóbbul foo xam ne bu doon yow rek doo fa àgg nga xam ne ñi nga xam ne amuñu woon ay cër du ñuy boroomi xam-xam du ñuy boroomi wilaaya waaye boroomi pas-pas la ñuy jëbal ko seen bopp dana leen defar ba ñu doon ay ñu ñu ràññiku ñu amuk wilaaya ami cër ci seen boroom jege ko lool bu dee ko doon boroom xam-xam mu def ko muy boroomu cër bu dee ko doon boroom cër mu yéegal ko ba mu weesu fa mu mënoon a bu doon moom donga moo tax kon doon rek taalibe Sëriñ Tuubaa bu mu defaral boppam ba noppi ca doonte kooka amul ak sëriñ bi ak jote ci njureel walla ak bokk loola doy na cër mu boole ñaar yépp nag doomi Sëriñ Tuubaa ju yaral boppam ba noppi ca kon kooku Cheikh Mouhamed Fadel la mu doon nituk yàlla ku xej ci boroomam ku indaaleb cër ku indaaleb cëram ba noppi nag jëf pàggute teg ca nga xam ne kon mën nañu wax ne majzub saalik moo ko indaaleeg wilaaya ba noppi nag jëf jëf joo xam ne ku ku ku yorutoon dara it boo ko defee danga doon danga am da nga am wilaaya mu boole ñaar yooyu ba jege boroomam lool ba bokk ci ñi ñuy tuddee ci waa tasawuf ahlu tasrif ñi am sañ-sañ ñi suñ boroom may sañ-sañu jëfandiku ci jamono ak waa jamono te suñu borom di ko fekk ca loola ca ànd ak moom kon ci tomb bu njëkk bi mooy kan mu Cheikh Fadil wax nañ ne kon mooy doomi Sëriñ Tuubaa ji boppam ñaar mooy ki jublu ci boroomam jaamu ko ba jege ko lool ba bokk ci ñi nga xam ne xadis xudsi ba ñoom lay wax ne ab jaam du deñ di jegeñ jegeñ lu boroomam sama jaam du deñ di ma def jegeñ jegeñ lu ba ma bëgg ko su ma ko bëggee maay doon déggam ga muy déggee di gisam ba muy gisee di loxoom ba muy jàppee di tànkam ya muy doxe lu ma laaj ma may ko ko lu mu muslu ci man ma musal ko ca mooy kon yàlla koy yàllay doon léppam loolu kon euh, taxaw boobu la taxaw woon ñetteel bi mooy Cheikh Fadil moo doonoon kilifa jamonoom ki nga xam ci jamonoom moo doon wéeruwaay bi bi gën a kawe di delluwaay bi gën a mag lépp di so moom mu dëggal la waykat bi wax ne li kulli zamanin waxidun yuqtada bihi wa haza zamanun anta la shakka waxidu mu doonoon koo xam ne ku mat sëkk la mu doon la woon nekk boroom xam-xam bu mag ku ragal yàlla ku sàmm ku dëgër ku amuk dogu ku mën a muñ ku bari yërmande ku dëddu àdduna ku yaatu dënn ku ñaw ku xereñ ku tabe ba jikko yu rafet yépp yi nga xam ne yépp ku mat kilifa mat wéeruwaay daa nekk ci moom lépp mu nekk ci moom kon mu doon ku mat sëkk la mu doon jamono ji mu gi ñuy waxtaane ab taxawaayam te mooy bi mu yoree bi mu jiitee kilifteefug yoon wi nekk xalifa jamono jooju ci biir fekk na booba réew mi moomagul boppam ndax mi ngi toog ci jal bi ci 1945 te réew maa ngi moom boppam ci 1960 kon am na fukki at ak juróom ci xilaafaam yoo xam ne lépp booba réew moomul boppam ginnaaw bi réew mi moomul boppam itam mu nekk fi ay ataat yu tegal 1960 bi 1968 kon dafa boole ñaari jamono jamonoy euh, colonialisme ak jamonoy indépendance jamono jii mu nekk nag nga xam ne ba muy yor xilaafa gi te réew moomagul boppam dafa fekk booba senegaal daa fekk booba àdduna sépp réew jullit yi rawatina nekkoon ci noteelu nasaraan yi ay at ba yàlla dogal jamono soppi ku ñu xeex ñaari xeex yoo xam ne àddina sépp nation doon ko xeex muy guerre mondiale première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale. 14 euh, 18 ak 39 45 ñaari xeex yépp waa Sénégal yabal ay soldats yu ànd ak France xeexle ko bi xeex yooyu jeexee nag ci la jamono soppiku ci biir. colonie yi ci réew yi France ak yeneen réew yi yilifoon mel ni toll na ci jamono joo xam ne nooteel bu njëkk ga mënatu la am ñu tàmbali di woyofal woyofal ak nooteel di joxe ay liberté ñu dem ba mu mel ni ñu doon dund ci réew yi ñu tudde ay colonie dañ leen a jàppe ni ay citoyen may ay doomi réew yooyu France nga xam ne dañuy am ay sañsañ yu bari yu tolloog yow waa France am te fekkoon lu jiit loolu ci biir Sénégal amoon na fi ay dëkk ay commune yoo xam ne ña dëkkoon moom dañ ne woon ñoo français ñoo tolloo ay citoyen français lañ moo ña dëkkoon Ndar ak Gore ak Tëngéej ak Ndakaaru waaye ci jamono yi sëñ Fallou di nekk xalifa takk na euh, loolu ñu xaw koo yaatal ñu tàmbali ko di ko yaatal ba mu bëgg a daj réew mi mu mel ni sénégalais yépp lañ bëgg a may ay liberté xaw a woyofal buumu noteel ci ñoom ñu am tàmbalee am sañ-sañu tànn ku yor seen kàddu ci assemblée bu France maanaam dépité euh, am sañ-sañu def ay syndicat am sañ-sañu forme ay parti politique fekk booba ñu baree bari ci doomi Sénégal yi jàng nañu ba am ci ay kaata ay avocat ay euh, savant ay yeneen i borom xam-xam yu mag ay intellectuel yu mag yoo xam ne seen allure sori na lool mu mel ni kon jamono ngi soppiku kon ci biir noteelu réew mi euh, ci jamono ju mel noonu kon ci la sëriñ fàllu jot xilaafa gi bim ci jotee am na fu mu fekk yoonu murit tollu fa mooy fekk na sëriñ bi ñibbisi Tuuba fekk na Cheikh Moustapha nekk xalifa ba ndigal yi sëriñ bi joxe woon gannaawam mooy bu fi bu bu wàcc bu nit bu nit bu bu bu dëkkaale boroomam wàcceeb liggéey bu noppee cib liggéeyam nañ ko indi Tuubaa loola sotti na jumaa jim digle nañ ko tabax waajtaay ya ca war def nañ ko ba tàmbali koo tabax ba nekk ci liggéey booba ba lépp nosu yàlla dogal guerre ñaareelu guerre bi am ci 1939 lépp taxaw liggéey jumaa ji taxawaale ci bi muy laata tàmbaliwaat bi guerre bi jeex ci la tase Cheikh Moustapha moom itam wàccu liggéey Cheikh Mouhamadou Fadil wutu ko ay semb yu rëy ne ci kanamam te mooy yeggale liggéeyu jumaay tuuba ak def dëkkub Touba bi mu mel na ko sëriñ bi bëggee woon te bind ko ci matlabu faw say ni ak it sàmm yoonu sëriñ bi ba pas-pas ya mu yare woon taalibe ak jikko ya ak doxiin wa dara bañ caa sooxe yépp nekkoon ay défi yu nekkoon ci kanam Cheikh Mouhamadul Fadel ci jamono jooju kon ci jote xilaafa gi ci jamono jooju nag ci wàllu politique ni ma ko waxee fekk Sénégal am ay liberté ñu may ko sañ-sañu doomi réew mi war a tànn seen député bu leen di bu yor seen kàddu ca assemblée bu France ba nga xam ne yépp politique yu France di dem def tam jëm ci colonie yi doomi colonie yi man caa am seen kàddu joxe ci seeni xalaat ci jamono jooju mu fekk amoon ñu doon xëccoo kilifteef googu ngir bëgg a taxawal Sénégal ca pencum réewu France ñaar doon ko xëccoo ñaar ñëpp nag ci jamono joojee euh, dañoo ñu ngi nekkoon boobu ci jamonoy campagne di wër réew mi ngir lot ngir jot baati réew mi ngir jot kàddu yi réew mi ngir ku leen fal jamono jooju nag ñaari taxawaay moo nekkoon ci kanam kilifa ak diine Cheikh Moussa di bokk ci mooy benn yow kilifa diine gi nga maandu ci politik bañ caa am taxawaay bàyyi nit ñi te sa njaboot ci biir ñi bokk ak ñi politique euh, ñu naxante ñoom ba ku cay falu falu su boobaa yow ni nga maandoo woon ci ci bañuy ñuy palu noonu ngay maandoo ci doxalin yi ndax dañuy jàpp ne yow bokkoo ci politique bi kon amu tànn nag taxawaayu bañ a seetaan xanaa seet ci ñiy xëccoo ku mu jàpp ne kooka mooy euh, ka gën ci njabootam ak i projet dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh mu ne bi Senghor ak Lamine di wër di campagne te eg seeguñ Touba sëñ daa woote wax ne ñaar ñoo ñi di wër de ku ci ñëw te wax ci liggéey bi liggéey sëñ Touba bii rek kooku mooy gañe ak kum ci man du doon nee na Lamine njëkk a ñëw wax ba àggal tuddul liggéey jumaa ji sëñ Fall jox ko fukki junni ne nga wëggee ko say fas yaag ñi nga àndal mu daal nangu fukki junni ya bam jàllee sangoor ñëw ne sëriñ bi dañoo nekk di wër di laaj di di dagaan baati réew mi yéen na xam ne ñu sell ngeen yoo xam ne dugg leen ci politique waaye dañu doon sàkku ñaan ngeen ñaanal nu bu ñu faloo seen liggéey bii ngeen semb ci seen penc mi daañ ci jàpp ne bu waxee loolu sëñ Fallou ne ko demal nga waat ko demal fee ci baraag ba baraag mooy barab mag bi nga taxaw waat ne bu fekkee ne liggéeyu soo ko amee danga taxaw ci liggéey bii euh, kon nanga ko am bu fekkee boo gañee doo ci taxaw bu ko am mu dal dem taxaw ci barab ba yëkkati loxoom daal di waat loola euh, loola moo tax euh, la ca topp ginnaaw ba topp ca Euh, loolu maa ngi ko dégg ci làmmiñu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadel léegi nag foofu dañuy wax ne lu tax ñaar ñi doon xëccoo réew kii di jullit kee nekkutub jullit moom mu ñëw jàppale ki nga xam ne nekkut jullit wala bokk kooka daal di ko wax ak moom ba falu loolu dañu naan ci xam politique ak dégg jamono ak xam li xew ci la bokk fekk na boobu ñaar ñi xëccoo kenn yoru ci projet bi lislaam kenn ku ci nar tënk aw doxalinam ci lislaam amu ci ka ca tudd jullit ak ka ko doonul ñëpp a ci yam ñoom ñëpp li ñuy wax laïcité mooy yoonu diine nekkul ci doxalinu réew loolu lañ bokk gëm euh, kon kenn ku ci taxawal ku ci ku ci am projet bu lislaam amuloon kon ñoom ñaar ñoo yam ci diine ji ñoo ci bokk taxawaay benn taxawaay ñoo ko ci bokkule kon li fi sës mooy xool sa intérêt maanaam ku ci ëppal njariñ lislaam ji lislaam yi nga xam ñoo ci bokk ñoo bokk ñoo bokk nu ñu koy xoole ku ci gën maanaam ku ci gën a mën a ku ci amal njariñ daal projet projet moom mii taxaw diine kon loolu la doon xool kon foofu nag ci la ñuy duggee wax ne taxawaayu Seexul Faal ci politique mi ngi ko tënk ci ay tomb ci niñ ko seetantale bi ci njëkk mooy dafa jëfandikoo li sëriñ bi wax al mudaaraat mudaaraat mooy jëflante gu tege ci lu neex yàlla sëñ bi daa waxoon ne wala lahu soxbatu fasiqin wala xultatuhu illa li durrin musjala wajtani bo xultata haulai li annaha min aqbahi al ashyai lakin mudaaratuhum wa qad nudibat kaba bi nassin fi xadisin qad sabat sëñ bi nee na ñi nga xam ne dañoo génn ak topp tënkuñ seen bopp ci diine boolewuñ yàlla ci seeni programme ak seen doxalin seen bakkan ak seen xalaati bopp ak nañ gisee la ñuy doxe ñu leen daan tudd ceddo bu leen jaxasoog ñoom ci lu ñàkk ci lu lu mënta ñàkk waaye nag ku bokk ak ñoom nekk cim réew di jaxasoog ñoom sa njaboot di jaxasoog ñoom euh, na nga maslaa ak ñoom maslaa ma nag mooy wa xadduha irdaahum bi gayri ma nuhiya makruhan kulaw muharrama mooy nanga déggook ñoom ci lépp loo xam ne naqariwul yàlla na nga jëflante ñoom te fexe ba lenn lu naqari yàlla bu ca ànd ak ñoom nanga dégg ñoom ci lu neex yàlla ci lu naqariwut yàlla sëriñ bi na nag maslaa moomu du ñépp ko war a def ki ko war a def ki war a jaxasook ñooñu mooy boroom xam-xam bu mat sëkk cim xel mat sëkk ci ñor mat sëkk ci ak ñaw ba noppi nekk koo xam ne ku maandu lay doon euh, koo xam ne du jàng ku mel noonu nee moo war a taxawe maslaa yooyu ñu gis ne kon Cheikh Moufat dafa tànn kon mudaaraat mooy maslaa mooy di jëflanteeg kilifay àdduna yi jëflante boo xam ne lépp ci lu neex yàlla lañ koy tënk waaye dara lu naqar yàlla du desu ko ci mën a yóbbaale mel ni misaal ci joxe général de Gaulle bi mu fi ñëwee Sénégal 1958 bi réew mi waaj am ànd ak soxnaam ñëw Touba di seet Sëñ Fallu ànd ak ay kilifay diine bañ dikkee ni Touba baaxoo soxna si tàllal loxo Sëñ Fallu Sëñ Fallu bañ bañ ko jox loxo am kilifa diine gu ca àndoon naan ko waay kii mënu ko jox loxo rek mënu ko waa ji jabar jàmm du ma ko laal waay dangaa bëgg ma nuyu jabar jàmbur ji du ma ko def du ko def kon tënkoon na boppam ci diine ba nga xam ne ku mën di jaxasoon mënoo ko yóbbaale ci lu neexu yàlla euh, kon ci noonu la ko tënk la maslaa mu mel noonu jëflante bu mel noonu la ko la ko tënkoon waaye tënk ko nag ci maandute tënk ko ci lépp di ko teg ci xam-xam di ko teg ci njariñul mbooloo mi mooy almaslaha al euh, waaye lépp loo xam ne njariñul boppam la wala njariñul ñu ko ay jegeñaaleem du ko ca tënk waaye njariñul njariñul ñëpp bokk ca koy ca koy tënk boole ca itam mbirum diineem du ñu ci diineem du nangu kenn ku ko ca orienté baa ku ko cay jox xalaat baa ku ko cay jox ndigal lu jëm ci mbirum diineem mbirum àdduna rek ak réew mi seq ci nga di ngeen jëflante waaye mbirum diine moom mayul benn kenn kilifa ak nga di ca dugg ak moom di ko jox dara moo tax li mu nekk lépp ak di jubóog nguur geeg ak Senghor teewul lu jëm ci woor ak wor yi ak tabaski yi demee noonu da ko daa teg ci sunna Yonent bi sa mooy bi ñu gisee woor weer woor bi ñu ko gisee wori mu ñu gisee weer tabaski bi ñu ko gisul bañ a tabaski foofu la ko daan teg donte waa réew mi daanañ jaar ci yoon moom mu ànd ak mbooloom am mbooloom jaar ci yoon ngir na loolu la diine santaane du ca déglu waxi buur walla fu buur féete mbaa lu muy def kon maslaa mi du jëm ci mbirum diine mbirum diine du ci bokk kenn du ko ci orienté kenn du ko ci jox ndigal du ca déglu kenn du nangu it ku ko manipuler maanaam ku ko dugal ci organisation boo xam ne buur da caa jublu nos mbooloo mi téye ko di leen jëme fu ko neex moo tax am na kilifa àdduna gu mag gu fi nekkoon gu bëggoon lu mel noonu bëggoon a boole tarixa yépp ci benn organisation boo xam ne moom mooy tànn ka koy jiite bu ko defee di joxe ndigal ndigal yooyu kilifa yi di ko jàllale ah, kilifa yi di nekkal fi nguur gi di wéye seeni waaw moom mu ne jataay ba ñuy nase loola ak mbooloo mame du ca bokk du wuy ji wooteb kookee bëggoon loolee te kooku ci jamono jooje doole réew mi di ci ëpp ci loxoom la nekkoon kookee di ko tëkku di ko xiixaan Eh, waaye defe naa bañ gongi ko la ci juddoo ñi xam la xewoon lépp xam nañu ko kon foofu la tegoon ab jëflanteem kon bokk na ci ñi amoon taxawaay bokk ñi ci ñi doon lijjanti ngir Sénégal moom boppam bi Sénégal moom mee boppam itam kay ñay jiite amoon na taxawaay ci ñooña jeexital ci seenu falu ak seeni doxaliin gannaaw ba ñu faloo bu ko defee tomb waxtaan bi xol bi mooy taxawaay sëñ Fallu ci daluk réew mi ci wàllu politik ak ci wàllu social dañ koy tënk ci ne personnalité bim amoon maanaam teewaay teewaayu jëmm bi amoon ci réew mi donk ku ràññee wekk ko bàyyi ko xel yaakaar ko taxoon na mu jàpp ne moom mooy bàyyi waa Sénégal maanaam sénégalais yépp moo war doon seen wéeruwaay moo war doon seen rawukaay moo tax mu daa wax ne man maay Sénégal man maay Sénégal maanaam jàpp na ne moom mooy jëmm ji nga xam ne waa Sénégal gépp bu seen bët xonqee ci moom lañu war a daw làqu bu ñu amee jafe-jafe moo leen ko war a lijjantil bu ñu sonnee moo war a taxaw ci lu leen noppal mu am taxawaay boo xam ne dafa matale réew mépp séq ñépp jàmm ubbil ñëpp ba ñëpp jàppe ko bàyyi ñi nga xam ne ay jullit lañ ak ñi ay jullit ñëpp di ñëw ci moom def ko wéeruwaay defe naa am na sax ay turandoo ay turandoo yoo xam ne seeni waajur du ñu ay jullit jullit yépp it kilifay diine yépp mu seq ak ñoom jàmm am ak ñoom ay relation euh, di leen di jàppalante ak ñoom di yëgoog ñoom di waxtaan ci lépp euh, ñiy politique ñëpp it di ñëw ci moom ña ànd moom ak ña ànd moom ñëpp ngir xam taxawaayam ci biir réew mi ak jeexitam mbooloo yi ne ci biir réew mi yëpp moo xam ay syndicat lañ moo xam ay mbootaay ay association lañ moo xam mbooloo mu tënkuwut lañu waaye am nañ intérêt yu leen boole ñëpp it def ko muy seen rawukaay ñu ci amee jafe-jafe dañuy ñëw ci moom mu nekk euh, réew waaw wéeruwaayu réew mi loolu mayoon na ko nag mu am taxawaay yu mat sëkk ci daluk réew mi ci wàllu politique xam bu jaxasoo amee ci géewu politique bi dana doon koo xam ne mën na caa taxaw ba euh, jaxasoo googee dañ ba ak dal am ndax ña ci ànd ak moom ak ña ànd moom ñëpp dañ déglu kàddoom te danañ ko wet te kenn ñemewut a moom ndax ngir xam wuuteeg la mu koy jural ci yàqute ci wàllu politique ba muy def euh, bu jaxasoo amee ci diggante ay liggéeykat ak ña leen di liggéeyloo mu nekk rawukaay boo xam ne buñ bokkee ñëw ñay liggéey bu ñu amee jafe seen njaatige buñ dawee làqu ci moom dana woo njaatige ya fexe ba ak dal amaat ca seen diggante bu amee ñoo xam ne ñoo séq nguur ay jafe-jafe bam téye leen jàpp leen dana taxaw taxawaay yoo xam ne ba ñooñu ñu woya ñu yolomal leen bàyyi leen te lu ca war dana ko def ba ñooñu amaat jàmm bu fekkee ne réew mi dafa am dafa nekk ci jafe-jafe yoo xam ne ci suñu borom la bàyyi ko di ay nattu juboo nag boroomam ba su ñaanee yàlla mu wàcc yërmandeem wàcc ay xéewalam loolu tax na diirub li mu nekk ci réew mi doon yor xilaaf ak sëñ Tuuba ci dal réew mi nekk ab xeex amul ci biir réew mi ci wàllu xeet amul ci wàllu diine amul ci wàllu tariqa amul ci wàllu politique ak dara fi am diirub at yi nga xam ne yëpp nekk na ko fi ba ni mu wàcceeb liggéey yàlla def na it at yooyu yëpp at yi naataange ak xéewal bekkoor amu fi ngir juboo gim juboo ak boroomam ba su ñaanee boroomam mu mu wuyu ko ak ubbi ko ma kug taxoon na fu jafe-jafe amee rek ñëpp ay ñëw ci moom mu lijjanti leen tey ku am sa jafe-jafe bopp boo xam ne yow la yow la ñeel moo xam da ngaa wéradi mbaa nga ñàkk mbaa nga ami bor mbaa ñu def la lu mën di boo ñëwee ci moom ci yërmandeem aku tabeem aku baaxam dana la lijjanti kon moo nekkoon avocat peuple bi ci seen digganteeg nguur gi di leen taxawu ñi nga xam ne ay baykat lañ soxla ay matériel yu ñuy bayee ay machine ba ay jiw ba ay matériel yu mën a doon dana ko jaar mu gàddu mu gàddu leen bor boo xam ci loolu sam lay tege ñu lebal ko baykat yi bu ñu fayee mu baax na bu ñu fayut mu moo koy gàddu borom métier yu bari bu ñu amee jafe-jafe seeni métier amuñu jumtukaay da leen di gàddu ay bor ñu lebal leen jumtukaay yu ñu liggéeyee moo xam kuy ñaw la moo xam kuy def meneen métier la di gor ay àll di cee yóbbu ndox ngir baykat yi nit ñi mën a dem ci àll bi di mën a bay di mën a liggéey liggéey bu yaatu daana wax na liggéeyu taax maanaam ku jóg ci dem ci àll ci àll bi dem ca taax ya daa leen wax ne leen foofu ngeen nekk seen njariñ nekku fi ndax euh, euh, wërsëgu jàmbur boo ci bëggee dund doo ca mën a am loo doy kon dee leen ñëw ci àll bi di mën a liggéey di am lu alal ju yaatu joo xam ne euh, dana dañu ci mën a faj seeni seeni seeni seeni soxla kon nekkoon na koo xam ne taxawaayam ci daluk réew mi ci wàllu politique ak ci wàllu social taxawaay bi fës la woon boo xam ne euh, nekk na ci royukaay ba jamono ju nekk kuy kilifa ah mat naa la royukaay ci nooy doxale ci xam xam fi jamono toll ak limu ak li mu laaj moom ku xamoon jamonoom la ku xamoon taxawaay bi kilifa war a taxaw ci jamonoom la woon loolu moo tax nag liggéeyu sëñ Tuubaa bii ci yoonu murit mu yàggale ko fu kawe sëñ bi bi muy ñëw Tuubaa jumaa ji projet bi jumaa ji la fi bàyyi woon ak projet daaray xam-xam ju mag ak aji màkka loolu Cheikh Al Hadj Mbacke Bousso bind na ko ne ñetti bëgg-bëgg yi la xam ci fi sëñ bi bàyyi yu sottiwut bi mu fi jógee bi fi jógee aji na màkka joxe farataam yàggale yéeney sëñ ci loolu yoolub aj ga da ko def addiyee sëñ tubaa la mu aje maanaam la mu amoon ci li fi sëriñ bi bàyyi loolee la aje ji moom la aje kon yàggale na sëriñ bi yéenam jooje jumaa ji yàggale na ko Tuuba ci jamonoom la tàmbulee génne ci dëkku ci kaw-kaw ci dëkku kaw nag jóge ci doon dëkku kaw jëm ci taaxe ci jamonoom lañu liiñe dëkk bi xotti mbedd yi mu yor tërëliinu dëkk bu mag ñu def jumaa ji muy santaru dëkk bi nga xam boo jëmee Touba foo mën di jógee jumaa ji ngay njëkk a seen yoon waray dugal ci dëkk bi ci jumaa jale la jëmee ku fi ñëw kon xam ne fii dëkkub diine la la ngay njëkk a mooy soror bu mag bi ñu natt dëkk bi ci njiitul sëñ Cheikh Mbacke Gaynde faatma ci ndigalu sëñ Fallou nattiin woo xam ne ba fii nu nii dëkk Sénégal yi moom dong moo ci mel noonu nga xam natt yi nañu natte dëkki nasaraan ya ci wàllu àdduna noonu lañ natte dëkk bi mbedd yu yaatu euh, ak euh, nattin wu jekk ci jamonoom la courant ñëw ci dëkk bi ci la téléphone ñëw ci dëkk bi ci la ndox muy génne ci machine ñëw ci dëkk bi teen ba ñuy wax jàjj faal la njëkk wut ab machine pompe buy génn ndox ma di ko tuur ca kaw nit ñi di ñëw di te duñ wëgg mu daal def forage euh, daarul man naan daal di ko yaatal nag yeneen dëkk ci dëkki ta taalibe yi ak kilifa yi kon ndox mu yaatal ko Euh, kon loolu kon dëkk bi daal tey kon ci yoonu mel ni nga xamee ne noonu la ko sëriñ bi bëggee woon ba bind ko ci Matlabul Fawzayni ginnaaw bi mu noppee ci liggéey ñi ko wuutu Cheikh Abdoul Ahad dox ci jéego yam ca dox moom it euh, ba ni mu àggee ci jamono jii nga xam ne gis nañ fi dëkk bi toll nekk Euh, dëkk bi gëna rëy ginnaaw capitalu senegaal te bim sosow léegi yàggul muy taxawaay boo xam ne dafa sofu ci taxawaayub Cheikh Moustapha ma ko ak sëñ mag bi sëñ mag bi mooy ki sanc Tuuba gor àll bi sañc ko euh, boroomam jox ko ko mu moom ko mu def ko muy dëkkuwaayam naal yéene fee tabax juma ñaan yàlla bind nam bëgg dëkk bi mel ko waxit ne bu noppee cib liggéeyam nañ ko indi tuubaa ndax ak ñëwam tuubaa mooy tax li bëgg ci Touba mën a am ndax moom fu jëmam nekk rek fa la ñëpp jëm bi mu nekkee bu jógee Touba dem Mbàkke Bari ñépp dañoo daw dem wuti Mbàkke Bari mu dem ci géej gi ñëpp jaaxle mu del si ñu yóbbu ko gànnaar ñëpp yi dem gànnaar mu dem ci ñëpp jëm foofa mu ñëw njaareem ñëpp jëm njaareem kon fu jëmam nekk rek fa ñëpp jëm te bëgg na Touba doon jëmuwaay bi moo tax mu ne woon kon nañ ko indi Touba lu bari daana ko aj ci ak ñibbiseem Touba ak matub jumaa ji daana wax ne bis bu sama jumaa ji matee bis ma ñibbisee Touba ba sama jumaa ji mat ndox ma dana doy sëkk nanga maa nanga doy sëkk nga xam ne jafe-jafe ñi daan jóge Touba dem Njaareem di ko jàmbat jafe-jafe Touba daan na leen wax ne bis bu sama jumaa ja mate ba ma bu ma ñibbisee Touba ba sama jumaa ja mat li ngeen di jàmbat lépp dana dana jeex Cheikh Moustapha kon taxaw na ci itte jooju ba mu sotti mu taxaw ci naalub jumaa ji gàllankoor yi ci Touba bi doon teg yëpp te mooy yoon wuñ mën a jaar ba indi matériel bi liggéey jumaa ji muy raay bi ak sàrte ñu ci tegoon yëpp jàpp ne buñ ko ko waxee du ko nangu ndax du ko man nangu ko man ko def ko suuf si suuf si Tuuba ñu xamal ko ne ko jumaa ji nga fi bëgg a def doo ko def ci suuf soo moomut mu fexe ba suuf si mu lew ko lew Serigne Touba mu joxe alal un kilomètre carré mu def ko titre foncier daal di fondement jumaa ji Cheikh Mouhamadou Fadil bi ñëwee moom it sof ci taxawaay boobee kon mën nañu wax ne euh, Serigne Fallou ab xalqa ci biir silsila bu ko jiitu ak yi ci toppaat ginnaaw bi euh, kon euh, ngir mañ a téye téye kilifa yi ci jotaay bi mu yàgg nanga xam ne kon Cheikh Mouhamadou Fadil jëmm la woon joo xam ne ku marqué jamonoom la woon koo xam ne li ñuy tuddee xutbu zamaan xutbu samaan bu ñu ko waxee ñu bari mbirum baatin lañ koy jàppe te mooy jëmm ji a jege yàlla ci kaw suuf nga xam ne ci moom la yàlla xool bëtu yërmandeem ci moom la yàlla xettalee jaam ñi ci moom la yàlla di yërëmee ci moom lay jéggalee ci moom lay wàccee ay xéewal mooy boroom wilaaya gi gën a kawe ci jamonoom bu waxee xutbu zamaan loolu lañ koy firee ci tasawuf loolu la woon moom doonoon na ko waaye nag xutbu zamaan fii li ma ci jublu man mooy jëmm ji nga xam ne moo téye yëngub jamonoom jëmm ji nga xam ne fi mu dëkk yëngu yi fi nekk yépp daa nekk ca digg ba di ca jeexital kon kooku la woon jëmm loon joo xam ne ci jamonoom moo doon delluwaay bi nekkoon wéruwaayam doon lam waxoon ne moom mooy moom mooy Sénégal euh, mooy Sénégal ci taxawaay <coughs> bopp zahir waaye doon na ko it ci taxawaayu baatin ba mag ñi fekke woon jamonoom euh, marqué na leen lool te duñ ko fàtte kon jot na ndaw ñi nafaraat ak dundam xoolaat ay taxawaayam xoolaat itam teguwaay yi nga xam ne eh, ca la tege woon te lépp tege ci ak ñor tege ci xam-xam tege ci li ñuy tuddee réalisme mooy xool li mën a nekk ak fi jamono toll nga def ko tege ci xereñ tege ci eh, sàmm njariñul mbooloo mi ak intérêt réew mi kon ñu ngi tënk fii waxtaan wi Eh, di ziar bu baax nuyu ak ñaanal eh, Cheikh Abou Baraka mi nga xam ne moo nekk ci kanam njaboot gépp ak taalibe yëpp eh, di ñaanal itam ki nga xam ne mooy kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoom ñëpp yàlla bàyyi def yow Sëñ Tuubaa gépp ñu dëgër wér am kattan ba li yéene lépp man koo yeggale te defal ko kilifa yëpp te lépp ñu ànd ak ñoom ci loolu kenn ku nekk ca fa mu ca man a taxawee ca nam gën a rafete wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xamal ne daal képp ku fi teew lu say at bari bari ak lum néew néew loo roqee fi nga toog ak lum yaatu yaatu mu sori sori ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu Serigne Cheikh moom Serigne Abdul Karim ak ci turu Serigne Baye Ndam Fall ñun nag lii li ñu ci jublu mooy nap na bi rek xam ne kan mooy Cheikh Amadou Fadal ak njàmbaaram um ak um engagement am ci diine ak yoonu Cheikh Amadou Cheikh Cheikh bi mu jaraloon ko lu ne ba tax mu mel mu mel ci ñu ci kenn mënu lu ko waral mooy da cee def lu ci kenn deful Sëñ Tuubaa defal ko ci lu mu defalul kenn Sëñ Bamba moom ko am fulla ci boppam la noo ko def rek mu def ko la mu def la ko noo ko def mu def la ko ñu ngi leen di yëgal ne gën nañoo jaajuwaat gën nañoo laxasuwaay waat gën nañoo àndandoo waat gën nañoo yokk suñu pas-pas ngir nekk ci seen ginnaaw ngir liggéeyal leen bëgguñu dara xooluñu dara lu dul seen ngërëm loolu mbàkke ñi ngi koy teg sa loxo ngir nga tegal ñu ko jox say kilifa kenn ku nekk ci ñoom fu ñu yendu wala ñu fanaan fa na leen wóor ne leen wóor seen digal moo ñu fa bàyyi di ci ku mag ki di ci ku ndaw ki li ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu ko daal ñu yàgg fi tàmm xéewal ñu leen mën a liggéey hmm. waaye bu dee ci xol bi waaye bu dee ci xel bi bu dee ci pas-pas bi ak lax bi taxaw nañ ngir jëmi seeni i liggéey ak moytu seen i tere suñu sikkim bu mu gudd mukk bu ngeen jàpp ne doon nañ dara lu du doon seen i tool suñu mbubb bu mu rëy mukk ba ngeen jàpp ne gëm nañ lenn lu dul fas yéeneen topp seen ginnaaw jëfe seen ndigal moytu seen ndigal bu ñu gaaree oto bu rafet wala ñu am kër bu rafet ba ngeen jombale ñu ne am na loo xam ne bii war nañ koo def waaye duñ ñu ko wax ngir tolluwaay ba ñu toll mënuñoo rëy mukk ci seen kanam mënuñoo am dara mukk ci seen kanam mukk ci seen kanam mënuñoo am mbuum rafet mukk ci seen kanam ne la wóor ne daal la Cheikh Modou Fadal nekkoon te ngeen nekk ja ñun loolu rek la ñu nekk dara ji àdduna jaraluñu ñu jaay suñu taalibe ngir jënd ko leneen ndax man ba at nuuruñ bi du jaafu sa yëntam asalaamaaleykum wa rahmatulah nihma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay kasu rajab akramani yow yow nag li ma la si digal mooy dag ma daa bind yi bataaxal li ma li ma nee na maa bëgg a liggéeyal ka dem ko wax salaam ni mu ngi noonu kasu rajab akramani yàlla mel ko bëgg a dem tegale ci ngeen ngeen ngeen boo xam ne amul pakk amul dégg amul pax da ko waxoo ci def rek yàlla gi booy boo demee est-ce que loo mën ak loo mën duñ ko ne chaque jour si baax. Kazu Rajab akramani Kazu Rajab daf maa teral. Kazu Rajab akramani